พระคำนาดาร์เชคเจดาร์ซีดเชคอัลมัดจิจานีว้าวเชื่อจะมิดฟาอุลอักบาร์เจว้าวว้าว كناصر الحق بالحق واو كعين الحقائق كنور المطلسم كعين الحق بالحق بابا نيتي بوك بولين جيسي دا غاي ديفاني كو اتمان لا ني جودو واو غاي ديفاني كو اتمان لا ني جوغي نخ زين العابدين dafa war benn bax la benn bax la teg gi yépp di wurus laltaaju teg gi yépp di sooy mu bàyyi ba tàkkusaan mu war ko di doxal bax la bi nga xam ni amirul mominina sax amul bax la bu mel noonu benn yahudi ni ko yow sëtu Muhammad nga ni ko eey eh, naam mu ni ko nga defe ni ëllëg di dem aljanna mu ni ko lu sax mu ni ko ni nga mel ci àdduna yàlla jox na la sa aljanna mu ni ko ah, boo gisoon la ma dencal xam ni lii musiba la <laughs> ah, ah. boo gisoon la ma dencal xam ni lii musiba la